ba lenn ci li nga xam ne ñoo di ay ndawam di ay bànqaasam ñu ci mel ni ay ñi nga xam ni ñoo di ay ndawam ci wàllum plateau ku ci mel ni ministre yi wala lenn ci ñi nga xam ni sa su ne dañ cey gis chroniqueurs yi wala chroniqueuses yi ba ci lenn ci journaliste faroo ci lenn li nga xam ni jege nañ bu baax baax lii di pouvoir wala daanaka mën nañ ne ay lenn ci ñi nga xam ni dañ nekk ci wàllum internet TikTok Facebook ak ci lenn ci plateforme yi daan défendre bu baax a baax kii la di njiit réew mi leen muy kàddu bi nga xam ni lañ daan faral di wax lu bëri bëri daanaka sax mën nañ man mi nga xam ni jànguma français jànguma dara sax du arab du dara nekk ak xam ne sax mën nañ ne kàddu boobu dama kaa mokkal bu baax a baax muy force reste à la loi daanaka force reste à la loi boobu lee mën nañ ne ci même réew du Sénégal gi dafa mel ni ak benn Macky Sall président de la République ak benn leader wala ak benn opposant rek la daan saxal moom moom boobu lee di force reste à la loi ndax kat suñu seetloo mën nañ ne force reste à la loi bi lee gis nañu bu baax a baax loolee lu daal di naxasaay la ci même réew du Sénégal ndax daanaka moom mi lee ginnaaw bi nga xamee mooy Ousmane Sonko jàmbaarloo loolu lenn ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum justice ci 2021 ba léegi leen mën nañ ne boobu la mbir dafa tëddee tëddeenul benn yoon ñaaxannaay ndax kat kii de Ousmane Sonko njiitu opposition bi lee gis nañu du leader Pastef les patriotes gi gis nañu saa su ne lépp loo xam ne jëmee na ko ci wàllum loi mën nañ ne du ci am dara ndax ay plainte yu bëri mu ngi nii ba ba léegi gis nañu dara du benn yoon bi nga xam ne daan nañ ko yëngal saa su ne képp ko xam ne yëkkati nga ak plainte jëmee ci moom mën nañ ne saa su ne dañuy gis ni luy kat ñu fexe ba tout ba du bokk ci yile élection yi jëm mu nekk xam ne saa su ne même réew di Sénégal dañuy gis ni saa fi ñu fa tollee bu nekk mën nañ ne dañ daan wax naan kii di njiit réew mi la dafay ragal bu baax a baax di jàmbaarloo ak ki nga xam ne jamono googu moo fay am doole ku ci mel ni jamono Khalifa Sall ak ki nga xam ne moo di Karim Wade tey jii mën nañ ne boobee ba léegi kii di Ousmane Sonko njiitalu Pastef jàkkaarloo kii di président de la République amu ko benn yoon may ko benn distance di jàmbaarloo ak moom ak di ko wan ne man opposant opposant radical la mën nañ ne tey jii moo ko may li mu am ba sax mën nañ ne askanu Sénégal partout dans le ko sax mën nañ ne di bëggee kii di Ousmane Sonko ndax kat gis nañ Tiken Jah Fakoly ak so sol ak tisat lorat na rawal li nga xam moo di bracelet waaye rawat na tamit ñeneen ñi nga xam ne saa su ne dañuy gis ni ku ñuy daal di défendre kii di usman Sonko la mu nekk mbir bi nga xam ne lu daal di am solo la moom mii di président Macky Sall ci ab kàddu bi nga xam ne yëkkati woon na ko lenn ci déclaration di xamle bu baax a baax ne du du fësal benn yoon ngir troisième mandat ndax kat réew di Sénégal duñ ko nangu waaye nag moom mën nañ ne gis nañ bu baax a baax décision boobu mu nekk li nga xam ni ñu bëri ci jox ak jàmm ak salaam luñ daal di rafet lu la woon waaye kat daanaka mën nañ ne moom kat dafa daal di xam la woon dina respecté bu baax a baax lépp loo xam dafa tukkee ci ndigalu justice maanaam ndogalu justice muy le respect des décisions de justice ana tax moo tax tey jii juge Sabassy Faye foofee sa Ziguinchor daal di jël ab dëgg jox kii lee di Ousmane Sonko pour ñu réintégrer ko ci lépp lu jëm ci wàllum ak ak yelefam ci liste électorale yi lee daanaka mën nañ ne justice bi nga xam ni mooy juge Thior di coon daal di xamlewaat bu baax a baax dugal lépp lu jëm ci wàllum Ousmane Sonko ak ak yelefam boobu ba léegi mën nañ ne force reste à la loi fan la nekk le respect des décisions de justice Fall la nekk kon nag daanaka président Macky Sall Thiendella Fall ak ñi nga xam ñoo faroo foofee ca Sénat dañu gis ni saa su ne booba ba léegi mën nañ ne le respect des décisions de justice force restera à la kàddu googu dafa naxasaay wala dafa am kenn ku ko moomoon ñu jël gis ñoo xam ne ay droit lañ xam am xam-xam bu baax a baax ci lu jëm ci wàllum droit ku ci mel ni Aïssata Tall Sall ku ci mel ni Ismaïla Madior Fall ku ci mel ni ki nga xam ne tey mooy Sidiki Kaba ñoom ñëpp nekk li nga xam ne ay borom xam-xam ci wàllum droit waaye daanaka dañ mel ni kii di Macky Sall moo daal di buum di buum mi mën nañ ne jamono guñ toll dafa mel ni président Macky Sall moo daal di Sénégal ndax kat bu justice dogalee mu mën a lii am du fi am benn yoon loolu dafay nekk mbir mi nga xam ni lu daal di naxasaay la li nga xam ni lu daal di métti loolu ci am ak réew waaye nag yàggatul dara dara fi nga xam ni moo di élection 25 février daal di ñëw waaye ba léegi gis nañu bu baax a baax kii di Ousmane Sonko daanaka lu mu gën a gaawee dañ ko war a jox lii di fiche électorale a baax waaye jox ko liste de parrainage ngir kat mu daal di décision de justice mën nañ ne teguwul benn yoon ci ndog di Ousmane Sonko mën nañ ne force reste à boo teguwul benn yoon ci ndodd kii la di Ousmane Sonko ndax kat gis ngeen jugement xam jàll mën nañ ne tey jii mbir bi lee su ba toll fi mu toll ku lu am solo la ndax kat daanaka mën nañ ne moom moo ko yóbbu tribunal ba tey muy dem ak ñëw ba ñëw cour de fi nga xam ni tey mooy cour suprême waaye di ñëw ba ñëw bi bu grande instance bu Ziguinchor waaye di ñëwaat ba fi nga xam ni mooy cour interne tribunal grande instance bu Dakar waaye saa su ne boobu ba léegi mën nañ ne dañu gis ni bu du am benn yoon décision bi nga xam ne saa su bu ko justice jëlee dañ koy dal ci kii di Ousmane Sonko ah, daanaka mën nañ ne su doon tey jii nga xam ne tey mooy Ousmane Sonko lii di ay avocat état bi lee daal ñoo ko dugal waaye tamit mun nañ ne ndam ñu am ndam kon lu mu gën a gaawee dañ koy daan kii di Ousmane Sonko kon daanaka lan moo tax tey jii le respect des décisions de justice amul ci ndogalu kii di Ousmane Sonko daanaka mën nañ ne boobule mbir dafay nekk mbir yi nga xam ne lu daal di teguwul benn yoon ci dëgg ak ak yelef la lépp rek ngir lan jàmbaarloo ngir ragal kon nag daanaka bi mu réew di Sénégal suñu bëggee taxaw ne bu baax a baax suñu njiit yi ñi fi nekk tey bëgg nañ Sénégal mën nañ ne loolu ay waxin rek la nañ ne du leen lu dul ragal ëllëg kàddu yi xam ne Ousmane sonk waxoon na ko loolu rek laa di gis bu baax a baax te daanaka sénégalais bu bëgg lu baax bu nekk moom ngay gis mooy lan mooy Ousmane Sonko xamle woon na bu baax a baax atum 2024 gi la ñu jëm li ma yemoo dimanche 25 février su fekkee ni sénégalais yi de wóolu nañ ko ba fal ko mun nañ ne képp koo xam ne mos ngaa jël xaas Sénégal gi lee boo ci tabaxoon ak building sax dinañ ko delloowaat waaye nag yemu fa mun nañ ne daal di xamle woon bu baax a baax numéro di Sénégal justice dina am tëddee ñaaxanaay bu baax a baax ndax kat dina ci def liggéey bu am solo mun nañ ne képp ko xam ni sénégalais nga di nga gis sa bopp bu baax baax ci mbay mi ci lépp loo xam ni ci mim réew di Sénégal yaa ko moom ndax kat bëriwaa na depuis 1960 ba léegi tubaab yi ñooy dund suñu kaw ba ba léegi waaye ñun dunduñu ci ñoom benn yoon waaye nag mu nekk ay mbir yi nga xam ni nidul Pastef les patriotes gilee ginnaaw gatsa gatsa bi nga xam ne woote woon na ko mu metti loolu waaye nag di am ci ndam bu baax a baax kii di Macky Sall du ko nangu benn yoon ndax kat dafa mel ni ak buur kese la te moom lee nañ ko wax suñuy vidéo muy Sénégal guñ toll wala Afrique buñ toll daanaka yenn président yi mën nañ ne buur rek lañu daal di taxawee ndax tey jii bu fekkee le respect des le respect des décisions de justice am na kon nag kii di Ousmane Sonko waruñoo xaar benn yoon donte état bu ko neexee mu dëgal ak recours foofee ci cour suprême waaye nag ba léegi gis nañ Macky saal day jaay doole bu baax a baax kii di Ousmane Sonko ndax kat saa su ne bépp woote boo xam ne moom jiit réew mi la woo na ko kii di Ousmane Sonko wala woote na ko pour ak toog waxtaan ñëpp dem nañ moom mu des Ousmane Sonko ne moom moom Macky Sall daan na ko xamle woon muy kat daanaka lenn rek la ku gedd sa aye su yàkkee woon ko tontu bu am solo mooy ñun suñu yaay day aye te day toggul neex am na xooñ bu day sëkk waaye nag daanaka mën nañ ne kii di Macky boo ko laajee lan nga gën a met lan moo la met sa àdduna lan nga gën a lan moo a met sa xol bokk na ci ki nga xam ne tey ji Ousmane Sonko daanaka lépp loo xam Macky Sall koy def bu rek woote ci Ousmane du ko wuyu benn yoon nag kat dafa neexul ñu tëj say ndaw woote nga nga ji waaye dafa neexul bu baax a baax lenn si ay lenn si nga xam ne say ndaw lañ mun nañu ñi ñu ngi ci prison yi ñii faatu nañ ñii am ñii am nañ gaañu gaañu ba léegi amul benn enquête bu daal di jógee ci koy ci loolu kon nag maanaka koy wuyu ak koy waxtaanal day fekk daanaka foofu nekk mbir bu neex nekk foo xam ne leen waxtaan bu baax a baax mun nañ ne loole kii di Ousmane Sonko dafa mel dafa nekkoon ci dëgg waaye nag dëggam googu mun nañ ne ginnaaw kàddu yi nga xam ni kii di Macky Sall président li fi amoon du fi amaat kàddoom yooyu dëgg la daf kaa jëlee ci ki nga xam ne jubale ko ci kenn ku dul président Ousmane Sonko muy la le respect des décisions de justice boobee mun nañ ne kon daanaka bokkul ci Ousmane Sonko mii dafa mel ni kuy dund ci Sénégal gi la waaye bokkul ci Sénégal gii daanaka force restera à ana ñu ko doon wax ci ay chroniqueur ana ñu ko doon wax ci ay journaliste ana ñu ko doon wax ana ñu ko doon wax tey jii mën nañ ne gis nañu ñoom ñëpp dañ ne pat kenn waxatul ba ba léegi waaye nag mu nekk ay mbir yi nga xam ni saa su ne kon kii di Sonko daanaka jamono guñ toll ni yàlla rek moo koy dëgëral yàlla rek moo koy may li muy am nañu saa su ne saa bu ñu ko tëree pour rend koy jugalaat daal di jël paak boobu xamaatal ko a ñëw du mën a dagg a def dara waaye nag am ba am su buur yàlla dogalee jaam bi dogalal saa su ne ñu gis ni jaam bi day effacé ngir bañ bu baax a baax ak rëdd boobu mu mu leer waaye nag dañuy gis ni saa su ne boobu la rëdd su yàggee mun nañ ne yàlla day rëdd effacé la waaye nag mu nekk mbir yoo xam ne jamono guñ toll nii ñu bàyyi xem bu baax a baax l'homme propos Dieu dispose yàlla noppi na bu ba bu baax a baax su fekkee ni njiitu réew mi la di président Macky Sall ak ñoñam dañaa xam ne ne bu baax a baax kii Ousmane Sonko atum 2024 gi la yoon boobu yàlla noppi na te moo ñu gën a xam boppam bu